Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, suivre avec nous l'actualité nationale internationale. ànd naag njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. ànd naag njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp. teew ci barab bii. teew ci barab bii. Serigne Hassan Fall. nee na Hassan Fall. ibnu Cheikh Mouhamadou Falilou Fall. moom Cheikh Mouhamadou Falilou Fall. ànd naag moom. ànd naag moom Serigne Assane Fall. moom Serigne Assane Fall. ànd na ak moom. ànd na ak moom. Serigne Lamp Fall. Serigne Lamp Fall. moom Serigne Assane Fall. moom Serigne Assane Fall. teew na ci jotaay bi. teew na fi. teew na ci jotaay bi. Serigne Moustapha Fall. Serigne Moustapha Fall. moom Serigne Cheikhouna Fall. moom Serigne Cheikhouna Fall. moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall. moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall. Serigne Abdoulahat Fall. Serigne Mame Gounda Fall moom Serigne Assane Fall. waaw fàttewuñu fàttewuñu ñun ñu ngi may. ak Serigne Saliou Fall. sëriñ Abdou Lahad Fall. sëriñ Abdou Lahad Fall. moom sëriñ Amdi Khady Fall. moom sëriñ Amdi Khady Fall. teew na fi. teew na fi. sëriñ Saliou Fall. sëriñ Saliou Fall. ñu gën koo xam ci sëriñ Saliou Siwis. ñu gën koo xam ci sëriñ Saliou Siwis. moom Cheikh Modou Moustapha Fall. moom Cheikh Modou Moustapha Fall. teew na fi. teew na fi. sëriñ Aliou Fall. nee na sëriñ Aliou Fall. moom sëriñ Cheikh Astou Ndiaye. moom sëriñ Cheikh Astou Ndiaye. teew na fi. teew na fi. sëriñ Maam Cheikh Fall. sëriñ Maam Cheikh Fall. moom Serigne Cheikh Assou Ndiaye. moom Serigne Cheikh Assou Ndiaye. teew na fi. teew na fi. Serigne Abdou Lahad Fall. Serigne Abdou Lahad Fall. moom Serigne Cheikh Fall Assou Ndiaye. moom Serigne Cheikh Fall Assou Ndiaye. moom Cheikh Mamadou Moustapha. moom Cheikh Mamadou Moustapha. teew na fi. teew na fi. Serigne Cheikh Fall. Serigne Cheikh Fall. Jëwrin. Jëwrin. moom Serigne Cheikh. moom Serigne Cheikh Fall. moom Serigne Cheikh Fall. Assou Ndiaye. Assou Ndiaye. teew na fi. teew na fi. Serigne Bassirou Fall. Serigne Bassirou Fall. moom Serigne Assane Fall. moom Serigne Assane Fall. Taaleen. Taaleen. Taaleen. Taaleen. teew na fi. teew na fi. Serigne Saliou Fall. Serigne Saliou Fall. ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Fall. ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Fall. teew na fi. nañu nag dund bu baax euh, bésu 20 septembre bi bés bi nga xam ni at mu nekk ñu def ci exposition bu am solo bi nga xam ni topp ngeen ko sànq ak ñun ci teewaayu président kuréel gi di Cheikh Makhtar Diouf naa xaqan alayna nasul muminin waaye gis itam délégation officielle bi nga xam ni Serigne Mbaye Ndiaye di ministre d'État waaye di membre. Euh, ci kuréelu fàttaliku julli géej gi moom it ànd ci exposition bu am solo bi ak waa ministère de culture bi ñu ci jógee it xam ngeen ni bés bi bésu ngont maam Cheikh ma Fall la Lamp Baabul Muridina délégation yu am solo jóge fu nekk ñëw euh, sëñ Cheikh Assou Fall mi nga xam ni at mu nekk moom mooy ñëw ci turu sëñ Cheikh jëmb ànd ak ñoom sëñ Saliou Fall njabootu sëñ Modou Moussa Fall ñoom ñëpp dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ni euh, yëkkati nañ ko fi sëñ Baara Mbodj def ko fi mu am solo lool. loolu mooy euh, li nga xam ni jëlale nañ leen ko ci teewaay itam mbokk kuréel gi yëpp mbokk soxna yi soxna Sooda Xuma ak mboolem ñi ma àndal waaye soxna maam Ami Maxtaar euh, soxna maam Ami Maxtaar di soxna Cheikh Maxtaar Diouf moo nit euh, ànd ak délégation bu am solo ñoom ñëpp ñoo teewoon ci bés bi kon duñ def rek lu dul dig leen daje incha allah suba waaw wala ca kanam sax ndax xam naa ne jamono yi ngeen di seetaan lii mi ngi fekk ñuy waajal nag li nga xam ne mooy julli ji euh, ci njiitu Cheikh Mohamad Fadal Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir buñ ci jógee nag dem ci cérémonie officielle bi nga xam ne daa ngeen ko seetaan ca kanam incha allah ci seen télévision euh, Futurs Médias kon Pape ñu àndandoog ak mbokkute téléspectateurs yi ba ca kanam incha allah ci cérémonie officielle bi.